mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën leen a ndokkeelaat ci weer wu tedd wi nga xam ne moom la ñu nekk di balu ak ñëpp di bal ak ñëpp ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom njëggal te mooy borom yërmane te mooy ki nga xam ne mooy mën a mooy bale ñu ñaan ko te toll ci waxtu woo xam ne ñaa ñaan njëggal toll toll nañ ci ñu ñaan suñu borom ci waxtu yi nga xam ne moom lañ toll ak bis bu tedd bii ñu nekk mu jéggal nu suñu bàkkaar yépp te képp lépp loo xam ne moo lu ko neex lu ko neexut la tañ defoon ko ñu mu baal nu loolee ginnaaw boobu lu ñuy tàllal suñuy loxo di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ lii nga xam ne moo nekk ci àdduna si te sonal ñëpp te moom rek moo ci am moo ci man dara muy digg yi nga xam ne moo sonal doomu adama yëpp suñ borom jeexal ko tàkk ci àdduna si ñëpp képp koo xam ne itam dal na la suñu borom saafara la kum dalagut suñu borom musal la ci ginnaaw loolu ñu tàllalaat suñuy loxo di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ ñu Cheikh Mahmoud Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Serigne Touba te lii itteem lépp mooy doomu aadama yi ak lislaam ji suñu borom gën ko ci dëgëral gën koo jox kattan gën koo joxu man ba lépp loo xam ne yéene na koo defal doomu aadama yi yéene koo def ci lislaam mu def ko definu kawe njottam tañ ànd kook moom te daje ci suñu borom ginnaaw loolu itam ñu tàllalaat suñu loxo di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ képp koo xam ne lislaam mooy sa tool suñu borom gën laa kàttanal gën laa jox ak man ba li nga xam ne yéene nga koo defal lislaam nga def ko ci definu kawe sa njot te daje ci ngërëm suñu borom te ànd kook ñi nga xam ne ñoom nga ko war a àndal ginnaaw loolu nag ñu ñu ñu waxtaane woon ci wàll yu bari ci koor ndax waxtaane woon nañu ñan ñooy ñi nga xam ne ci àjjuma ji weesu ñu ngi waxtaane woon ñan ñi nga xam ñan ñooy ñi nga xam ne lislaam may na leen ñu ñàkk woor ci ci weeru koor wi ñàkk dog ñu may na leen ñu dog ci weer wu tedd bi yi nga xam ne moom lañ nekk ak ñi nga xam ne dañuy ak ñi nga xam ne dañoo war a dog tey nag ñu war a waxtaane lan mooy yan mooy yi nga xam ne mooy dog koor loolu nag buñ ko xoolee ñaari xaaj la ñaari xaaj la benn bi boo dog bu dogee boo ko defee ba mu dog sa koor ba noppi la lay war mooy nga fay koor ga kese am boo xam ne nag boo ko defee ba mu dog sa koor ba noppi doo yem ci fay koor ga waaye da ngaa war a kafaara ñu kon nag ñi nga xam ne nag moom boo boo bu la dalee da sa koor dog na waaye sa sa koor yàqu na kon li la waaye fa waj fay rek moo la cay war yooye mooy bi ci njëkk boo tayee lekk wala nga tey naan loolu sa koor dog na waaye li lay war mooy dangaa war a fay boo bis boobee dangaa war a kafaara itam ñaare bi mooy ki nga xam ne dafa tay wàccu wàccu boo xam ne moo ko tayal boppam xay na moo luuju ba tax wàcc mi génn kooku itam dafa war a fay bis ba waaye nag fay rek moo ko ci war li ko li li tax ñuy wax ne nag fay rek ko ci war mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ne Abu Hurayrata moo ko nettali yonte bi dafa wax ne képp koo xam ne wàcc ma nga wàcc dalaa not amoo ca pexe dafa jekki-jekki ñëw rek ci mënoo ca dara kooku nee na lu dara wër ko lu dut mu fay ka nga xam ne nag dafa looju moom moo fexe ba wàccu kooku moom li ko war mooy moom itam mooy maanaam ki nga xam ne fay maanaam wàcc mi da ko amu ci pexe dafa ñëw te amu ci benn pexe kooka li ko war mooy dara waru ko lu dul kooka du war a fay bis ba waaye li mu war a def mooy dafa war a continuer bis ba ba mu ba mu jeex du di jàpp ne rek wàccu na rek daa war a daal di sañ lekk wala mu sañ naan déedéet day continuer bis bu ko defee nag du ko du ko du ko fay waaye ki nga xam ne nag moom moo fe moo fexe ba ba wàccu kooku moom da dana continuer bis du du lekk ba noppi te daa war a fay ñaareel ñi keneen ka ca teguwaat mooy ki jigéen ji nga xam ne dafa gis baaxam. wala jigéen ji nga xam ne dafa dafa day sogo day sogo gis dafa dafa jigéen ji nga xam ne dafay sogo am doom te dara dara tam dogagut kooku doonte dafa am doom te ba muy am doom fekk jant bi di waaj soo ni mu war a jàpp mooy bis boobee moom bis bu bis bu bis bu mu war a fay la ki nga xam ne itam dafa am baax te bi muy am baax fekk na xëy na li des am na lu des jant bi te bëriwutam li mu war a jàpp mooy xam na ne bis boobu moo waroon baaxut dafa war a fay bis booba ñaareel ba mooy ki nga xam ne fexe na ba maanaam ndox mi nga xam ne moo baaxoo di génn ci jigéen ci góor wala ndox bi nga xam ne mu baaxoo jigéen génn ci góor képp koo xam ne ci ñoom ñaar ñii fexe nga ba mu génn te ba la ko génne mooy loo xam ne yaa ko tey benn la ko mu doon loo xam ne xëy na kenn koo xam ne xëy na dafa dafa fóon soxnaam wala mu doon koo xam ne da daa taf soxnaam ci boppam ba mu ko defee loola indi tax mu génne ndox mi nga xam ne moo baaxoo génn ci góor wala jigéen ji génne li nga xam ne ndox mu nga xam ne moo tax baaxoo génn ci bu boobaa ñoom ñaar ñooñee nañ xam ne koor gan doon def yàqu na waaye yàqu ko du tekki na sañ naa tax tax naa sañ ñu sañ na leen ñu may ñu lekk ñu ñu lekk wala ñu wala ñu jàpp ne war na ñoo mën a def la war a la ñu war a def déedéet dañuy jàpp ba bis booba jeex te bu bis ba jeexee tam dañ koy fayaat waaye bu fekkee ne nag li tax ndox mi génn ci góor wala ndox mi génn ci jigéen daf li ko génne mooy xool rek kese kooku moom du yàq koor ga te dara du ca war ñaareel ba mooy ñett beneen bi ci teguwaat ci yi nga xam ne day yàq koor te nga xam ne fay rek moo cay war mooy nit koo xam ne xëy na jël na sex na loo xam ne baaxoowuñ di di ko dundee waaye nag sexe na ko ci gémmiñam mu jàll ci biiram ñu xam ne kon kookee loole mu def doonte dafa lekk dafa lekk loo xam ne baaxoowuñ di ko lekk mu mel ni ki xorom xam nañ ne xorom deesu ko dunde waaye bu fekkee ne yow yaa tey jël xorom seq ko ci sa gémmiñ mu jàll ci sa biir doonte lii doonut lu baaxoo lekk itam loola day tog day dog sa koor te itam da nga war a fay bis ba waaye dog googee itam du tax ba tey nga am sañ-sañu lekk da ngay continuer bis ba ba mu jeex bu noppi nga fayaat ko ki nga xam ne nag dafa da nekk ci koor ba noppi yéene ne moom génn na ci koor gi dog na daa yéene bu ne dog na donte lekkul loo xam ne mooy tekki ne dog na itam kooram googee baaxut da ko war a fayaat maanaam waaye du tax mu mu sañ am sañ-sañum nag ne sama comme sama koor dog na rek baaxut rek damaa war sañ a lekk wala damaa sañ naan waaye daa war a continuer bis ba ba mu jeex bu ko defee mu fay ko bu bu bis bu weer wa jàlle ñaareel bi nga xam ne ki nga xam ne nag moom du yem rek ci fay bis ba nga xam ne yàq yàqu na waaye da caa war a boole kaffaara mooy xam nañ ni weeru koor weer wu tedd la lu suñ borom ormaal la lu mu wàccee ay xéewal yu bari la kon kenn ku nekk wa lam la ca sant da def ca la ca la cay sa kémtulay def ca la nga xam ne moom la ci sant ci sa kémtulay kattan dafa laa war mu mel ni nag ki nga xam ne dafa ànd ak soxnaam ci bëccëgug weeru koor na xam ne te ba mu koy def moo ko tey kooka na xam ne def na lu rëy loo xam ne amul lu ko gën a kawe ba tax na li koy war mooy du tax mën a ànd ak soxnaam du tax mu jàdd jàpp ne rek kon nag mën naa lekk mën a naan naan ndax bis bi jeex na déedéet bis ba daa war a jàpp la ca des ba noppi itam bu noppee daa war a fay bis ba waaye du yem ci fay bis ba waaye dafa war a kafaara bis ba ni mu koy defee mooy ba kuñ moom di am daa war a goreel kuñ moom ñaareel ba bu ko muntu def mu woor ñaari weer yoo xam ne dañuy toftaloo bu ko mënut mu jox lu mat fukki miskin man lu mat juróom-benn fukki miskin mu jox leen loo xam ne mën na leen mën na ab ci ñoom loola mooy tax la nga xam ne def na ko ci koor gi te tey ko suñ borom ñu mën a wax ne defal na ko yoon woo xam ne mën naa kafaara loolee nga xam ne moom la def kon suñ borom mi nga xam ne mooy boroom kàttan te mooy boroomu mu man te mooy boroom sañ-sañ yàlla nañu dimbaleel boppam ci kàttanam ak man-manam ak sañ-sañam ba li nga xam ne moom lañu sant ñu di ko taxawee ni nga ko bëggee te daje ci ngërëmam te lépp loo xam ne doonut loo xam ne lu mu bëgg bëgg ñu def ko la mu fex mu dimbaleel nu boppam ba duñ ko def te fa li nga xam ne jot nañ koo def ci koor gi ci yu baax suñ borom moom mi nga xam ne moonu andil weer wi te yéene ci yéeneenu ci ay aw yiw ak xéewal yàlla nañu suñ borom nangul loola ñu ci jot a def te falal nu fulal nu ko te jéggal nu suñuy bakkaar bi nga xam ne digg na ko ci weer wi ci ñetti digg yëpp muy njëggal gi ak yërmande gi ak goreel gi yàlla nañ ko suñ borom defal loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal allahuma rabbana taqabal minna wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم